waraa rek tamit mooy loolu tudd nga tudd nga daral yëpp parce que déjà daan noo ko mën a comprendre fii mooy faculté F parce que gars yi comme ni ñu naan ay ICAD wala mel noonu mhm. mais fii bu voilà fii mooy faculté F mhm. yaa ngi dégg nga xam ko bis ki tey mais ñun nag ay xar duñ ci duñ ci ay gan parce que yàgg nañ ci dañoo judd rek fekk ay xar yaa ngi dégg dañ doon jàng mu yàq suñu jàng ñu ñëwaat fekkaat suñuy parents yi nekk ci xar yaa ngi dégg mais nag euh, bëri na bëri na coono trop dañ naan xaalis xaalis mais bëri na coono laan coono jëndiku parce que da ngay dem ci àll bi duuma yi sept heures yaa ngi dégg nga nekk si ba ay deux heures trois heures nga soog a nga soog a mën a jënd ay xar nga ñëwaat fii gars yi dee la def ay prix ma xamante ni yu misérable yaa ngi dégg te loolu tamit non seulement rek coono la ngay jënd ay xaru cent mille ñëw di jaay ay quatre vingt di mille tamit problème la quoi. yaa ngi fi ñoo ngi estaat ñii ñoo ngi tëngeej lan ñii ñoo ngi soti baa kii nii rek sama frère la mais te kañ demb si suba si la ñëw wàcce woon wàcce woon na fi 66 saar yaa ngi dégg mais fu commencé woon wanteer rek pour lan pour bañ a delloo xari parce que tamit bu delloo foofu tamit lan changement ndox bi tamit mun na leen rey wala yu mel noonu kanta fii ndoxu robinet bi la ñu kiiwee mais kanta fële tamit moom ndoxu taw beeg wala yu mel noonu bu ñu échangeante rek day rey xar yi raison pour laquelle dafay wanteer ay xaram rek problème yi bëri na muy lan mën naa la citer lan manque de sécurité fii amul sécurité manque de sécurité fii ci fora bi faculté F faculté F manque de sécurité moo ngi fi lu ko waral yaa ngi dégg mooy lan sàcc yi bàyyi ñuñ yoon yaa ngi bu ay wala mel wala bëccëg wala gars la sa wala gars di ñëw sa di jënd ay xar nii mooy loolu seen ginnaaw la ñuy nekk laat bii ñaata bii ñaata fekk jënduñu or dañoo bëgg lu ñu yóbbu rek dem seen yoon yaa ngi dégg te tamit transport tamit dafa métti dédouanement beeg wala yu mel noonu ah. loolu yaa ngi dégg nga dem jënd say xaar xontu leen deux mois trois mois nga ñëw fii mënoo leen jaay ba génn mu ne loolu tamit day coono kese la. ñun moom instant bi xam nga lan mooy suñu mbébé bëgguñoo delloo xar uh-huh. waaw parce que delloo bi rek coono la yaa ngi nga jënd say xar def si lan ay bi xont def lu ne ba un bon moment say nga da ngay tamit. E te dem day don day doon coono am na ñoo xam ne dañuy leb ay xar ba pare soog a mën a ñëw fii mais bo lebee ay xaru jàmm nga naan da nga koy delloo tamit loolu bu boobaa problème lay doon est-ce que doo jéem a rek dem sa yoon loolu tamit problème la ñun mom instant bi xam nga lan mooy suñu mbébéb bëgguñoo delloo xar waaw parce que delloo bi rek coono la yaa ngi nga jënd say xar def si lan ay bi xont def lu ne yaa ngi ba un bon oh, moment jaayoo say xar nga da ngay tamit te dem day doon day doon coono am na ñoo xam ne dañuy leb ay xar ba pare soogu mën a ñëw fii mais boo lebee ay xaru jàmm nga naan da nga koy delloo tamit lool bu boobaa problème lay doon est ce que doo jéem a rek dem sa yoon tamit kuy kuy liggéey si njënd ak jaay rek booy jaay da nga bëgg nga jaay loo xamante ne da ngay am mais tamit boo si nekkee tamit mënoo see gis sa bopp ñun amuñu leneen lu dul ay xar lañ am wala ay nag ñun lool ñun lool rek lañ fi am yaa ngi dégg parce que tamit bu ñu juddoo fekk ay xar wala ay nag tamit ngay jaay wala ngay dem di jëndi di ñëwaat mënoo see gis sa bopp tamit problème la yaa ngi dégg coono bi si nekk ak lépp nga ñëw ba fii mënoo see kii ne wala nga jënd fu ay xaru 100000 100000 nga ñëwaat fii di ko jaay ay katermen 85000 transport ñëwul sa coono ñëwul sa lan sa li nga war a fay sàmm yi ñëwuñu lenn ñëwul dèjà loolu rek problème problème bu dul jeex la non xar yi moom dañoo bëri lan wàllu lan étranger yi maliens yi wala mauritaniens yi ñoom ñëpp dañoo andi ay xar kanta ñun ñoo xamante ne fii lañ juddoo fii lañ màggee ñun jeunesse bi tey yaa ngi dégg ñoo lan ñooy sacrifier di jël xaalis di dem jënd ay xar buñ ñëwee mënu ñoo gis suñ bopp kon dèjà loolu rek problème mais kanta ñële ñoo xamante ne dañoo jóge seen seen biiri dëkk ñëw ba fii lan di andi seen xar wala lan di jaay mënuñu leen tere yaa ngi dégg mais tamit ñun nañ nañu jéem a gis tamit suñu bopp moom mooy moom mooy suñu avancement te tamit mooy avancement wu réew mi yaa ngi dégg ñaata jeunes ñoo nekk fi di semer wala mel noonu yaa ngi dégg kon tey bu ñu andee ay xari xar suñu booyee wala ñu leneen ñoo si war a mën a lan ku nekk ñëw jàppale sa mbokk yaa ngi dégg ñun buñ ci amee ñoom ñu mën a am loolu dèjà rek dina mën a wàññi chômage bi yaa ngi dégg mais bëri bëri na coono grand billaa wala ku si dugul daal mën a ko xam te kanta client yi tamit da ngay ñëw lan amuñu yërmande da ngay ñëw ñu fekk say xar taxaw ñu ne yàlla na xar yi ramm xoolal loolu rek mais loolu dèjà dafa ñaaw basaate moom am na si te tamit yonent bi da doon wax benn affaire mu ne wala daral wala diraaral yaa ngi dégg nañ am yërmande ci nit ñi muy lan clients yi jàppale jaaykat yi jaaykat yi tamit jàppale clients yi muy lan kenn bañ a loru si keneen ki te tamit client bi bu mu loru jaaykat bi tamit bu mu loru parce que tamit yaakaar naa tamit loolu tamit lu am solo ci nit te nit tamit war nga see mën a bàyyi xel non seulement da ngay jógee sa kër pour jënd te tamit booy jënd tabaski tamit bu si loru te tamit koo koy jënd tamit bu mu si loru bul gàncax kenn parce que tamit boo xoolee sa intérêt personnel la tamit da ngay mujjee sonal sa mais quant à ñëpp tam ñoo bokk ndey bokk baay mais liggéey bi la rek.